waa di dellu si anam si rek di leen wax comme information yi ñu am bon concernant toutes les sénégalais ak euh, bépp nit boo xam ni yaa ngi ci diaspora bi voilà di wax ni ñun daal bëgg nañu euh, en tant que sénégalais yi nekk fii ci Mauritanie di responsable action sociale bëgg nañu nag ñu partager suñu audio yi bëgg nañu aussi ñu bare ñu dégg li ñuy wax parce que franchement parler neexul ba neexul mais li ñuy gis ci jeunes sénégalais yi góor ñi li ñuy gis ci ñuy dee c'est trop wax dëgg yàlla ñun tiit nañu trop tiit nañu trop waaw d'ailleurs boo gisee Sénégal sax euh, waaw euh, góor ñi dañu manqué woon d'abord avant waaw ba jigéen ñi sax mënuñoo am jëkkër ñu bare mënuñoo am jëkkër waa tey buñ ci raxaatee lii nag ah dafay gën a doy waar day gën a metti waaw parce que lii di dee nii c'est trop lii di dee nii c'est trop waaw euh, pour te dire dañ leen dul wax sax exact au fond nu mu demee mais gaal bu tëmb rek doy na waar daal doy na waar day am ay moor day am ay moor waaw day am ay moor waaw actuel nii may wax ak yéen rek euh, te bu ngeen xoolee pile ay quatre cinq gaal yoo xamante ni wax dëgg yàlla hmm, li ci dee ci bakkanu doomu aadama kenn mun la wax lu mu toll ci ay góor waa li dee c'est trop wax dëgg yàlla metti na bon léegi nii léegi nii lañ amaat gaal nii sa matin hmm? waaw vidéo yi dinaa leen ko dugalal ngeen di gis nii ñuy dee comme ça nii ñu ngi ñaan war a rasuli ngi jëmi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dimbali leen ñu ngeen conseillé xale yi franchement métti na trop métti na trop actuel plus de douze gaar douze oto yoo xam ne dañuy yàpp ay nit ba fees ñu leen di refoulé à Rosso métti na métti na lillahi wa rasuli da ngeen gisul conséquences yi mais si vous plaît ngeen woo seen xale yi woo famille yëpp ñu informé leen ni leen carrément lii gaar nii noot cog noit di bu dafa yéeme li dee nii ñu leen di ëmb di suul nii kenn mënu la ko nettali wax dëgg yàlla ak yent bi dañ leen di ñaan ngi jëmi Seydina Mohamed su ngeen jotee suñu vocal yi euh, informer leen population bi informer leen askanu Sénégal parce que dee gi metti na trop trop trop di xool nit ñi mu lay xool di dog ak di nit di dog nii ñu lay sóob ci ndox mi koor yi ñu leen di for comme sa nii wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan li lay war a suuli man moodu Fall maa ngi wax en tant que président action sociale à Mauritanie maa ngi lancé un message solennel si vous plaît ngeen arrêté actuel en Europe sedd bi mi ngi dugg si fii quant à que Nouadhibou Nouakchott mi ngi sedd ni sedd bi métti na ñenn ñi sedd leen di rey voilà sedd moo leen di rey te géej dafa sedd arrêté leen actuel ñëw bi ñun fi ñu toll nii may wax ak yéen Nouakchott dafa sedd te kuy traversé Nouakchott pour nga am arrivé île Canaria il faut nga def quarante huit heures quarante huit nga bëgg naviguer ci biir géej goo xam ne dafa sedd solo baas doo ci gis ku sol baas ay t-shirt ay Lacoste parce que xamuñu géej moo tax ñu sol t-shirt Lacoste calcium kooku bala ngay génn géeju Nouadhibou rek sedd rey la bala ngay génn géeju noidi bu bay dugg mer de fu rek da ngay da ngay da ngay crampe ba dee waaw te foofu yëpp ñun dañ fa traversé xam la dafa nekk gis conséquences géej gi dafay jabax ku dul mool xamuloo luy loolu franchement yoon bi metti na li lay war a suli ngi jëmi Seydina Mohamed euh, wan leen xale yi informé leen leen ñu taxaw ñu dal waaw parce que yoon bi yàqu na actuel yàqu na parce que sedd bu ñëwee rek metti na gaal yi dañuy paan dañuy réer gaal gu réer plus de deux cent personnes gisaguñ kenn nii alors arrêtez leen soyons sérieux nañ leen waxante dëgg li laay war a soli maa ngi lancé un message solennel li laay war a soli arrêtez leen sénégalais yi arrêtez leen léegi metti na trop trop trop trop trop li arrivé bi léegi la nii léegi nii dimanche ci suba xool leen nit ñi xool leen gaal gi voilà vidéo yaa ngi noonu